di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lii nga xam ne mooy feebar boo xam ne lëmbe na àddina si nga xam ne xoolul jullit ak ku jullit ñu ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko fi indi ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla jële li ñu ci mën a wax rekk bala ñuy dugg ci waxtaan pour waajtaayu koor gi mooy ñu tuub dellu ci sunu borom subaanu wa taala kenn ku nekk xam na ni àddina si ñi ñu doon woowee réew yu ëpp doole ci àddina si ñoom ñëpp jaaxle nañ dem nañ boo wax ji bëri na ci feebar bi am na ñu ne ay boroomi xam-xam ñoo ko defar waaye man dama ne bu fekkee ne sax ay boroom xam-xam ñoo ko defar waaye yàlla ci boppam dugal na ci loxoom ba ñoom ñooñu nga xam ne ñoo ko defaroon yëf yu ëpp na leen loxo kon loolu dañuy nangu ne yàlla mooy wane boppam beneen bi ci des mooy kenn werantewul ne feebar bi mu ngi déparé Chine te loolu mën nañu wax ne yàlla moo doon fayul ay ay jaamam ñoo xam ne ay jullit lañ nekkoon Chine lu ne ñu def leen ko àddina si yépp toog waxuñu ci di ko seetaan yàlla ci boppam nag fayul na leen ci boobu boobule waaye wiris bi it ba mu leen dalee la nga xam ne moo leen ci génnee mooy njàngale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi li mu waxoon ci feebar mbas bu amee ci réew dafa waxoon ne ña fa nekk bu ñu génni waaye képp koo xam ne duggoon ci réew ma bu fa dugg kon boo seetloo loolu mooy njàngale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des mooy seetlu nañ ni bi yëf yi amee réew yi nga xam ne ñoom ñoo jëloon seeni ay nit delloo si leen ñoo ci gën a sonn ndax dañu jëfewul la sayyiduna muhammad waxoon su fekkoon ni bi yëf yi amee réew yi yëpp dañu mànkoo woon def enseignement Sayyiduna Muhammad kon mën nañu wax ne mën na am feebar fi mu yegg si fii tey du fi yegg si waaye am na ñu ko appliqué am ñu ko appliqué wul waaye liñ ci mën a dégg daal yàlla rek mooy wane boppam yàlla moomu nag mooy mooy ki nga xam ni moom dong moo ñu ci mën a génnee donte nag dinañu déglu. conseil yi nga xam ne moom la ñi jàng xam-xamu paj te mooy médecin yi li ñu wax ñu def ko waaye nag ñun en tant que jullit li ñu mën a jàpp ne moom moo ñu ci mën a génnee mooy yàlla subhaanahu wa moom mi nga xam ne moom moo moo ñu bind moo ñu moom ñi nga xam ne dañu wax ne ñoom ñoo ko defarit ñooñu yàlla moo leen bind moo leen moom yàlla nag moom mi moom jaamam yi du seetaan ay jaamam ay nit di leen toroxal waaye it nañ ci amaat beneen njàngat mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis boo xam ne waxoon na ni buñ demee boo réew caaxaan bari fa ay nit mu fësal ko yàlla dina leen indil ay natt yoo xam ne wala ay feebar yoo xam ne seeni maam ak ña leen jiitoon xamuñ ko woon ba xadis ba jeex beneen bi ci des mooy nañu ñaan mag ñaa ngi ñaan waaye ñi ñaan ab euh, ibnu abbas wala abbas ibnu ab muttalib dafa waxoon ni li ñu tuddee balaa du wàcc mukk lu dul ay bàkkaar waaye ne na balaa kenn du ko fi jële lu ji ci tuub kon tuub moo ñu mën a génne ci balaa bi waaye ñaan kese kese te àndul ak tuub du sotti kon kenn ku nekk danga nga war a tuub dugg sa biir néeg jàpp ne yow mii yow yaa def bàkkaar bi tax yàlla di ñu mbugal nga tuub ko bu ko defee bu ñu tuubee ñaan sunu borom sarax sarax génne ay sarax yàlla mën nañu ci génne yàlla nañu ci yàlla génne jàmm bu ko defee yooyu moom lañ doon def ci wàllu feebar bi di ñaan sunu réew mi ak fépp doomu aadama nekk moo xam feebar bi jot na la yàlla yàlla saafara la moo xam feebar bi jotu la yàlla bu mu la jot waaye ñi nga xam ne ñoom la feebar bi jot bu yàlla def ñu génne àddina ñoom it ah, na leen yàlla eh, xaari aljanna yal na leen yàlla yërëm bu ko defee yooyu benn muqaddima la woon rek ci wàllu waxtaan bu aju ci corona bi ah yal na ñu ci yàlla génnee ah réew mi it na fi yàlla def càmm ba yàlla génne ñu ci musiba bi nga xam ne ñu ngi ci yàlla deng moom kese moo ñu ci mën a génne yàlla na ñu ci yàlla génne ak jàmm bu ko defee loolu yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan seen émission bi nga xam ni dañ koy baaxoo di def ci weeru koor nga xam ni dañ koy delloo ci waajtaayu koor gi ndax wóori koor li ci des bëreetul kon dafay jaadu nag bu ñu ci jubee rek ñu waxtaan lu aju ci koor gi ndax ñu bëri dem nañ ci bàyyi xel feebar bi ba daanaka sax dañ leen di fàtte loolu bari am na ñoo xam ne sax jumaa daanaka dañ koy fàtte lu tax parce que dematuñu juma waaye loolu nag ci jullit warul a nekk ndax it boo xamee ne julli juróom yi du la fa du la faat feek amuloo ngant bu lislaam nangu da nga war a julli sa biir kër boo demul jumaa it na nga julli tisbaar mu nekk sa jumaa yal nañu yàlla defal ñun ñépp jàmm defal leen ko defal ko àddina si bu ko defee nag sunu tomb yi bi ñu war a njëkk a waxtaanee ci wàllu koor kon dinañu wax lan mooy koor ci boppam li ñu tudde as mu noonu la ko arab di wax as sawmu wala asiyaam as mu nag ci wàllu langue arab boo ko doon xool mooy téye sa bopp al imsaaku ani shay'i moom mooy li ñu tuddee eh, assawmu te mooy mutlaqul imsaaki ani shay'i te mooy nga téye sa bopp ci lu mën na doon moo tax alxuraan dafay nettali ci sayyidatina Maryam ba ñu koy laaj alquran daf ko wax ne fa quuli inni nadartu lirrahman sawma falan ukallima ma insiya dafa wax ne man sama borom de dama nizar nag ne duma wax ak kenn kon saw ma li muy firi kon mooy noppi wala téye sa bopp ci lu mënti doon kon linguistiquement loolu lay firi boo delloo nag ci sharia lan la koor di firi ñu ne kon boo demee ci taarif ci sharia fa huwa al imsaaku an shahwati al batni wal faraj min tuluuci al fajri alsaadiq ila gurubi shamsi bi niyati taqarrubi ila allahi te mooy nga téye sa bopp ci bànneex bépp bànneex buy dem ci biir wala ci pëy li ko commencé ci fajar fi mu fenkee ba fi jant bi di so kon booy xool loolu mooy àtte bi nga xam ni noonu lañ ko mën a déggee ci ci arab ak ci sharia koor googu nag dafa am ay ngëneel ngëneel gi nga xam ni koor am na ko dinañ ci am ñu ñu cité indi xadis boo xam ne sayduna muhammad moo ko nettali ci ngëneel bi nekk ci weeru koor ndax dañu wax ne as-sawmu ibadatun badaniyatun yataqarrabu biha al abdu ila rabbihi tabaraka wa taala fa yastahiqa bihi minhu subhanahu wa taala azima al li xadis abi hurayrata radiallahu anhu ñu ne koor jàmm yàlla la boo xam ne yaram moo koy def jublu ci jege boromam subhaanahu wa nga xam ne bu ko defee dana ci am benn yool bu jóge ci boromam ñëw ci jaam bi doon woor ndax ci xadis boo xam ne abu hurayrata radiallahu anhu moo ko solo abu hurayrata radiallahu anhu dafa wax ni yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu amali ibni aadama lahu ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzi bihi wa siyaamu junnatun fa ida kaana yowmu aha yowmu ida kaana yowmu sawmi ahadikum fala rafsa fala yarfus wala yabsuq fa in saabahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni imru'un saa'imun walladi nafsu muhammadin bi yadihi la xaluufu fammi saa'imi atyabu inda allahi min riixi lmisk wa siyaamu farxataani wali saayimi farxataani yafraxuhuma ya farxu yafraxuhuma te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis bi dafa wax ne ne na kullu amali ibnu aadama lahu mu ne bépp jëf bu dooma aadama di def lahu ñaal na ko jëf ja ila siyaamu lu dul li ñu tuddee koor fa innahu naka moom koor nag lii yàlla ne na man maa ko moom man maa koy fayal sama bopp wa ana ajisi bihi ne na yàlla nee na nit ki lépp loo def rek yow yaa ko moom ba mu des koor koor nag nee na moo ko moomal boppam wa ana ajisi bii man maa koy fayal sama bopp mu ne nag li ñu tuddee as siyaamu wa siyaamu junnatun maanaam koor li ñuy tuddee lu laay aar la bu dara du mën a yegsi ci yow mu ne su fekkee ne bi daa kaana su nekkee na yow mu saw mi ahadikum benn bés boo xam ne kenn ci yéen dafa woor mu ne su boobaa bu mu bàyyi def lépp loo xam ne mooy lu bon bu mu ko wax bu mu ko def mu ne dem na ba wax ne fa in saabahu ahadun bu fekkee ne am na kenn koo xam ne daf ko saaga wala muy xeex ak moom mu ne fal na wax ne indi man man mii ngay saaga wala man mii ngay xas de imri un saa man ku woor dama woor maanaam nit ki bu la saagaa ci biir weeru koor sax ne ko man dama woor bu la xasee ne ko man dama woor mu wax ne wala si nafsu muhammadin bi yadihi géñ naa ci ki nga xam ni bakkanu muhammad ci loxoom la nekk te mooy yàlla subhanahu wa mu ne la xuluufu fammi saaimi nee na xetu gémmiñu ku woor at yabu indallaay moo gën a teew fa teey fa yàlla min réexil miski ci xetu parfum c'est-à-dire boo wooree ba jànt bi soo dangay ngay yëg ni sa gémmiñ gi dafa mel ni lu forox ci wolof waaye nee na ni mu xet googu mu am nee na ci yàlla moom misk la mooy xetu parfum bu ñu wooyee misk nee na xetu gémmiñu ki woor nee na loolu lay xeeñ moo tax moo wax ne wali saa imi nee na ñaal na ki woor farxataani ñaari mbégte yoo xam ni ki woor dina ko am moment dina ko bég moom ki woor mu ne bu njëkk bi mooy isa aftara bu jo dogee fariha min fitrihi nee na su dogee dana kontaan ci ndog ki loolu moom kenn werantewu ko ndax defe naa ne ku woor ba jàtti béso da nga yëg mbégte boo xam ni ngeen baal ma ñu sant Jóob dinañu koy am lool wala ñi nga xam ni ay la lan dañuy sant lool ndax heure boobu gars yi dañuy yàkkamti yëf yi njóobeen yi macha allahu mu ne kon bu wooree rek bu dogee rek am na mbégte waaye nag wa iza laqiya rabbahu fariha bi mi mu ne su demee nag boo dajee boromam dina bég ci koor gi kon loolu ngeneel la ci ngeneel yi nga xam ne koor am na ko beneen xadis boo xam ne abi saïd moo ko nettali jëlee ko ci yonent bi moo wax ni ma min abdin yasuumu man fi sabilillahi illa baada allahu bi dalika wajhahu an innaari sabiina xarifan ay sabiina sanatan rawahu al buxaari wa muslim yonent bi nee na bépp jaam bu woor benn bés ci yoonu yàlla maanaam woor ko te yàlla rekk tax mu ne yàlla dina sore sa diggante ak bàkkaar distance lu mot juróom ñaar fukki ay at maanaam juróom ñaar fukki nawet yàlla dina la soreel ci safara lu toll noonu xoolal nag juróom-ñaar fukki at ci yàggaay ñu soreel la lu toll noonu ci safara li muy tekki li kon ku woor benn bés ci yoonu yàlla jubli ci jàmm yàlla kese yàlla dina la fegal mbugalum safara lool la xadis bi jublu beneen xadis ci ngeneel bi nekk ci koor jëlee nañ ci abdullah ibnu amr ibnu aas mu wax ne anna nabia sallallahu alayhi wa sallam qaal alsiyaamu walqur'aan yashfacaani lilabdi yowma alqiyaamati yaquulu alsiyaamu ay rabbi manactuhu tacaama washahawaat binnahaari fashaficnii fiihi wa yaquulu alqur'aan manactuhu nawma billeyli fashaficnii fiihi fa yashfacaani rawaahu ahmad yonent bi ci xadis bi abdullahi ibnu amru ibnu aas nettali moo wax ne weeru koor ak alxuraan ñoom ñaar danañu ndokkeel wala danañu jot wala danañu ràmm ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo ko doon def te mooy kii woor ak kii jàng alquran ñoom ñaar yàlla dina leen ràmm dina manam ñoom ñaar dinañ ràmm ki doon woor ak ki doon jàng alquran c'est-à-dire woor ak kiy jàng alquran ñoom ñaar kenn ku nekk la nga doon def ne na la taxaw sa kanam borom mu nekk sa avocat ci sa kanam borom ba yóbbu la aljanna <coughs> su fekkee ne aji woor la koor gi mooy taxaw ne ko ah yow sama boroom man mii de maa ko teroon lekk ci bëccëg bi waaye maa ko teroon lépp luy bànneexu bëccëg man maa ko ko tere woon kon nanga jaar ci loolu rek ràmmal ma ko alquran wax ne yow sama borom kii de man maa ko doon teree nelaw guddi ndax dafa doon jàng alquran guddi kon nag ma ràmm ci ñaar yooyu bu ko defee ñoom ñu ràmm la kon li muy tekki mooy <coughs> képp koo xam ni danga woor na nga xam ni al koor googu ngaay woor yomal qiyaamati ci la yàlla di jaar ba loolu mu nekk sa avocat waxal ak sa borom ba booba ba yàlla yóbbu la aljanna naka noonu it ki nga xam ne mooy jàngkati alquran bi moom it kasaalik noonu la yàlla noonu lay taxaw ci kanam boromam wax ak boromam ba layil la sa kanam borom ba nga dem aljanna kon loolu tax war na tax képp koy jullit boo amul ngant dinañu ci ñëw incha allah lan mooy ngantu koor kan moo war a woor ak ku dul war a woor ki feebar lan la ko sharia wax kii tukki lan la ko sharia wax jigéen bu ëmb lan la ko sharia wax incha allah yooyu dinañ ci ñëw ci ay point gën ko leeral bu ko defee bi ñuy tëjee rek ci émission bi mooy koor boobu ñu wax nag dafa am ay xaaj dafa am ay xaaj ci wàllu sharia dafa am li ñu tuddee as sawmul mafruud te mooy koor goo xam ne obligation la mooy farata la huwa ramadan wa sawmu wa sawmin awjabahu almaru ala nafsihi bin nadar te mooy weeru koor ci kooru farata yi la bokk ku amul ngant boo ko deful am bàkkaar wala koor goo xam ni danga nga dinga ko woor day mujj nekk farata ci yow fokk nga fay ko beneen koor kon boobu mooy bu njëkk bi kon nañ notte jàpp ne koor xaaj yi mu am bi ci jiitu mooy wóoru farata mooy weeru koor ak wóor boo xam ne yaa amoon nisar nisar nag ci ñi xamul mooy bu fekkee ne danga am jaaxle-jaaxle ci sa liggéey walla sa bopp walla aajo boo xam ni lu ne dañ nga ko ci aajo bi mu sottiwul yaa xam sa doom la yaa xam yaa xam ci sharia may nañ la nga ne yàlla soxla sii nga xam ne am naa ko de bu fekkee ne dimbale nga ma ba mu faju danaa ci woor nangami fan jaamoo ko yàlla su boobaa boo demee ba yàlla defal la loolu koor googu obligation lay mujj doon ci yow da nga ko war a woor ndax yaa ni sa borom wax ak moom ne la sama aajo bu fajoo danaa woor nangami fan dolloo ko njukkal te mooy jaamoo la ko su booba koor googu day mujj nekk farata beneen koor gi mooy asawmul masnuun awil mustahab koor boo xam ne sunna la wala dañ ko sob mooy bépp weer bépp koor bu dul weeru koor wala muy loo xam ne nisar nga ko woon koor boo mën a woor ci biir at mi rek day dellu ci sa sunna moo xam benn al al sax alxames ngay woor wala par altine walla wala wala waaye l'essentiel mooy koor yooyu yëpp ci biir at mi ñaar rek ñoom la ñu wax ne kenn du leen woor te danañ ci ñëw mooy li ñuy tuddee tëbëski ak korite tëbëski ak korite kenn du ko woor kon al iidul fitri ak iidul adha muy ñaar yooyu yooyu moom ci koor yi nga xam ne dafa xaraama woor la kon boo seetloo kon ñetti yi bu njëkk bi mooy kooru farata mooy koor gi nga xam ni mooy weeru koor bi ci topp ak li ñu tuddee kooru nizar beneen bi mooy kooru sunna wala bu ñu sob mooy ci biir at mi fan boo ci mën a woor rek day dugg ci loo xam ne du sunna sunna nag mooy li nga xam ni boo ko defee am yool c'est-à-dire nga am tiyaaba waaye boo ko deful dara du la ci fekk beneen bi ci des mooy koor goo xam ni dañ dafa xaraam te mooy nga woor lu mel ni tëbaski wala lu mel ni korite beneen bi nga xam ne nag mooy koor goo xam ne dañ ko sib te mooy nga woor bés boo xam ne bésu sikk sàkka la te mooy comme chaabaan bi ñu nekk mu am fanweeri fan fanweeri fan boobu nga woor ko dañu wax ne loolu dañ ko sib wala nga tànn bésu ajuma bu nekk nga di ko woor xam nga daa nga dégg ñuy wax ne am na kilif koo xam ni moom chaque ajuma dañ dafay woor koor googu mu tànn juma bu nekk mu di ko wor loolu dañ ko sib su fekkee ne da nga ko nar a woor da koy boole ak alxemes walla nga boole ko ak samedi c'est-à-dire da ngay woor jeudi ak vendredi wala nga woor vendredi boole ko ak samedi waaye bul seppi rek juma di ko wor moom kese loolu dañ ko sib donte nag xaraamul kon bu ko defee yii daal mooy am ci xaaju koor yi kon ma jaaraat ci pour nit ñi bàyyi ci xel kooru farata mooy bi nga xam ni moom ci la ñu jëm te mooy weeru koor kooku farata la ci jullit bu amul benn ngant dana ñëw ci ngant yi beneen bi ci des mooy koor boo xam ni danga nga nisaroon ne dinaa defal sama boroom nangam ci sama soxla si su fajo kooku yi tamit kooru day mujj nekk farata wal beneen bi ci des mooy kooru sunna wala bu ñu sob te mooy bépp bis boo woor ci at mi ci lu du weeru koor rek dañ ko tudde koor boo xam ne sunna la beneen bi nga xam ne mooy koor boo xam ne dañ ko sib te mooy nga woor bésu sikki sàkka wala nga tànn ajuma rek di ko woor beneen bu mujj bi mooy woor bés boo xam ne dafa xaraama woor te mooy ngay woor lu mel ni korité wala ngay woor lu mel ni e, tabaski kon bu ko defee yii daal moom la ñu waxoon ni nanu ko ubbee sunu émission yi dem ci wàllu koor gi nga xam ne ay rubrique la yoo xam ni incha allahu lépp lu aju ci koor gi incha allah dinañ ci ñëw comme ñëw tey indi nañ leen lan mooy atte bi koor am danañ leen indi ban année la la wàcc ci Seyduna Muhammad ak aaya yi nga aaya bi nga xam ni moo santaane weeru koor ak xadis bi ci Seyduna Muhammad jàngale bu ñu ci jógee ñu indi leen nan lañu lan mooy faratay koor ak luy sunnay koor balaa boobu danañ leen waxal nan lañu mën a séenoo weer wi ak bu weer wi feeñee ñan ñoom lañu war a tënku ci moom pour ñu mën a woor ah, yàlla ñu ci yàlla yóbbu jàmm yàlla ñu yàlla may ñu yegg ci koor gi jàmm bu ñu ci yeggee lépp luñ ci jàmm yàlla ñu ko yàlla nangul ñu ñaan yàlla ci barke weer Shaabaan bii nga xam ne ci lañu nekk ñu jublu weeru koor ah, yàlla ñu ci yàlla defal jàmm yegg ci jàmm waaye yàlla nañu yàlla dàqal feebar bii nga xam ni képp kuy nit nga xam jullit nga wala doo jullit rek xam nga ne jaaxal na la kon ñu ñaan ci yàlla rek ñu bàyyi xel li nga xam ne nag moom lañu ñu mooy ñaan yi nga xam ne yónnent bi jàngale woon na ko ci am mbas bu amee ab jullit nag li mu war a def mooy dafa war a fexe boo tënku ci sunna alquran ak sunna ndax bu mbir amee danga nga dégg ay version yu bari da nga dégg ku lay naan ne jëlal xal yi def ko ci furnu bi nangam ak nangam doonte dàquma ko waaye li ma mën a wax daal loo xam ne xadis yu wér la yu jóge ci Sayyiduna Muhammad ñu mën ko joxe kenn ku ci nekk boo mënee toog déglu ko dégluwaat ko mën ko mokkal muy ñaan yi ma bugg a wax moom lay teje émission bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ni am na baat yoo xam ne képp ku ko wax xëy wax ko suba nee na dara lu la dal ba ba jant bi di so képp ko wax ci ngoon gi nee na yàlla mën na la musal dara du la dal ba bët set te mooy bismillahi alladi laa yadurru maa ismi sheyun fi l ardi wala fi lsamaai wa huwa alsamiu alalim bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi sheyun fi l ardi wala fi lsamaai wa huwa alsamiu alalim lii boobu benn la ci ñaan yi nga xam ne ci ñaanu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bokk looloo waral boo demee ci mus eh, al ahsaab wal awraad ci cheikhuna tijaani chérif boo demee ci xisbul bahri da nga fekk mu indil la ñaan boobu beneen ñaan bi nga xam ne sayyiduna muhammad jàngale na ko ci wàllu mbas daana wax ne allahumma inni a'uuzu bika min barasi wal junuuni والجزام الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام bii ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko jàngale ci mbas ñu di ko ñaan pour mucc ci bi ci mujj mooy yonent bi jàngale na it auzu bi kalimatillahi taammaati min charri ma xalaqa auzu bi kalimaati llahi taammaati min charri ma xalaqa auzu bi kalimaati taammaati min charri ma xalaqa yii daal mooy ñaan yi nga xam ni nañu fexe kenn ku nekk boo xëyee rekk nga jàng ko ñetti yoon dem liggéeyi wala nga toog sa biir kër boo gontee nga jàng ko ñaan yàlla yàlla ñu yàlla teqale ak feebar bi ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke weer wi muy Chaabaan waaye ci weer ke weer wi ñu jub waaye ci barke mag bi bu ko defee ñu jàng kenn ku nekk fa nga toog nga jàng faati ak salaatul faati def ko hadis sayduna muhammad yal nañu yàlla dàqal seytaane yal ñu yàlla indil jàmm wa ma zalika allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu gërëm sunu caméraman bi nga xam ne moom la ñu àndaloon muy Kéba Sané ñu ñaanal ko yàlla ak équipe bi mu àndal ñoom ñëpp yàlla yàlla jàppale leen ki nga xam ne mooy kilifa groupe bi mooy Souleymane Ba ah yal na yàlla jàppale leen ba lépp loo xam ne lañu moom la ñu yéene ci groupe bi yal na ko yàlla mottali wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.